asalaamaaleykum mbokki Guédiawaye info Père Adama Ngom ñu ngi lay nuyu. waaw moom fils maa ngi lay fay bu baax a baax. Père Adama Ngom bëggoon nañu xam lan la géwél di def euh, ci mbër. waaw li géwél def ci mbër bëri na xam nga géwél géer gu baax war nga am géwél ndax géwél mooy wax yu baax yi mooy def yu baax yi ba pare bu dee kaadaru mbër géwél mooy tuusal mbër te mbër su defee entraînement ba pare. bisu làmb jot mu ngemboo këram bu duggee ci stade bi géwél moo koy tuusal te géwél bi koy tuusal da koo war a xam looloo tax géwél baax ci mbër waaw. damay dégg ñu ne yow ak Balla Gaye 40 mille la woon ba tey millions yi bëri macha allah. waaw loolu moom waxuma senegal mais àdduna bi yëpp xam na loolu ba ma koy tëggal 20 mille francs lay bëre di ko tëggal ba mu nekk roi des arènes sama diggante ak moom nekkatul. diggante géwél ak géer magam laa muy sama rak noonu laa mel ak moom léegi mais nekkatul diggante géwél ak géer Père Adama Ngom merci lan ngay wax ci Guédiawaye info yéen dama leen di ñaanal yàlla yokku leen ndax vraiment ñëpp yéen lañuy ñuy seetaan boo leen ko xamee looloo am boo leen ko xamul looloo am yan yàlla guddal seen fan jërëjëf merci jërëjëf.